amal habitude di cultiver li nga xam ne mooy gratitude ci sa famille sa couple sa foyer ak lépp li la yàlla may nañuy tàmm di gis di xool di observer li nga xam ne mooy xéewal yi yàlla tasaare ci suñu diggante tey couple yu bari dañuy dem ba nga xamante ni ku nekk yaa ngi jiñ sa morom que ni tu n'es pas yow pour nga doo gërëm ñamu daaw ak li ma la defal yépp wala gisul lu may def gisul sama coona wala li may daj couple yu ci bëri li tax dañuy gën a dem di gën a li nga xam ni mooy xol yu naqari di gën a installé wu jàmbat bi moo bëri ndax bu fekkente ni tey yaa ngi nekk sa soxna wala yaa nekk sa borom kër te yow lu négatif kase ngay gis naka ngay mën a gisee lu baax ci sa borom kër bi di ko nañu bàyyi xel que doomu aadama tànk yaa ngi obstiné wu ci li nga xamante ni mooy li baaxul ce qui les choses qui ne vont bien li nga xam ne aussi mooy sikk-sikk yi li nga xam ne aussi mooy yarate rate tànk ci loolu nga focaliser wu da ngay dem ba dootoo am goût ci li nga xam ne mooy positif yi li neex li li nga xam ne mooy li nga li li baax ci sa couple tey yàlla suñu borom li mu wax benn frase la bu yomb waaye nit ñi duñ ci bàyyi xel nee na sant leen ma ma dolli leen boo bëggee wér gi yaram gu bari looy gën a sant yàlla ngay gën a gëj hôpital di gën a am wér gi yaram soo bëggee xaalis bu bari yàlla nee na sant ma ma dollil la soo bëggee jàmm ci sa couple santal yàlla yàlla dolli la le temps que yaa ngi jàmbat ne sa jëkkër defalu la defalu la pourtant am na koo xamante ni amaana jëkkëram daanaka disparaître na ci vide bi gisu ko sax tegu ko bët tey yonent bi sallallahu lu tax mu ne en matière de alal nañu xool ñi nga xam ne ñun ñoo leen tane ndax foo gestoo gis ñoo tane en matière de gëm yàlla ak jàmm yàlla nañu xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu raw ndax ñu mën leen di roy ndax àddina bi importance bi nga ko jox moom la am ku nekk degré bi nga jox musiba yi noonu lay toll maanaam problème yi nga am ci sa couple yaa xam soo ko joxee 1 pour cent mu toll 1 pour cent soo ko joxee 30 pour cent mu toll pour cent tey su fekkente ni tey sa soxna lu muy def ci kër gi boo wàccee ne ko ah loo fi def tey suba tey yaa ngi toog c'est comme si da nga minimiser suba ba tey li mu liggéey togg bi yàq bi bale bi fobeere bi yóbbu xale yi école jàngale lépp danga ko jël gome ko sa soxna bu la nee dama sonn soutenir ko. ah yow kay li ngay def ci kër gi gis naa ko nangam sàngam soo ko ci mënul wax dara bu ko ne moom yow lii rek nga fi def lan nga fi def yow tamit soxna si en matière d'économie ñun jigéen ñi foofu la ñuy amee problème mooy tey da ngay am sa jëkkër par exemple mu ngi fay waaye bu dee da ngeen war a fay loyer mu ngi fay ndox mu ngi fay courant mu ngi joxe lekk mu ngi joxe naan am na ay petites chose yoo xamante ni xëy na euh, motalu ko am na ay mbir yoo xam ne xëy na euh, fatt ko jëndal xale yére wala yenn yoo xamante ni xëy na lu normal la. mais xëy na amu ko wala xëy na jàpp nga ni am na ko te moom defu ko bul focaliser wu ci yu sew-sew yooyu ba fàtte wala nga euh, sax ignorer li nga xam ne mooy yu rëy rëy yi muy def dama koy faral di wax jigéen ñi tout le temps tout le temps da ngay gis jigéen boo xam ne day jàmbat di jàmbat di jàmbat dama leen di wax ne leen quelque que problème financier bi nga xamante ni nga sa jëkkër doo defal lii wala lu muy def bëriwul wala kër yi jigéen ñee ko yor wala nangam sangam tout le temps aspect économique bi dama ciy wax parce que bu ñu xoolee tribunaux yi tey li nga xam ne mooy xaalis bokk na ci phénomène bi jiitu ci biir tas yi ndax dafa tabu ndax duñ ko waxtaane ndax ku ne yaa ngi obstiné ci li ngay def bañ a xool keneen ki lu muy def doo gis aussi keneen ki effort yu muy déployé kon bàyyi xel ci nit ki lu muy def. surtout ñun jigéen ñi ñu bañ a focus le temps si ah yow yaay ëpp yow yaay def li lii yow yaay def li ci lii parce que li may wax tout tey boo fi xiiroo alteeru ba waa ji fase la nga dem sa yoon yaa yor sa bopp toute boobaa amatu ku lay dimbali de maanaam euh, mariage si ce n'est pas des choses graves soxlawul tas ci yenn volet surtout yenn côté économique yi xam nga lan moo bon koo xam ne du def dara ko mu dama ne c'est un homme féminin kooku waru sa takk jabar mais ki nga xam ne lu mu bon bon am na fu mu la féete. kooku jéem ko wan li nga xam ne mooy li baax li muy def ndax mu am envie dolli tey bu fekkente ne heure bu ma la mayee nga tagg ma damay am envie dolli bien vrai que même dee def ko sax ngir nga tagg ma dama ko def te yàlla tax mais nga reconnaissant day tax te pourtant ñun ñëpp am nañu expérience ba ci ñun ñi nekk Europe fii da nga naan waa Sénégal moom boo leen yónnee xaalis buñ koy jot ñu la woo sax ni la merci jot naa xaalis bi doo leen déggaat wala nit ki balaa nga koy dégg rek mooy soxla kooku doo ko a may mais ki nga xam ne heure boo heure boo boo ko mayee mu reconnaissant gis li nga koy defal ba pare doylu ci kooku danga koy sawar di may tey comme ni ma koy waxee encore une fois su ñu demee ba xamante xam góor nu muy fonctionner góor doo ko jàmbat aw ma aw ma aw ma aw ma <laughs> day tax danaan ki yow yow yëgoo li xew dëkkee aw ma kon tax ma war la defal ginnaaw yow ma defal la doo am ma yàq laa defal doo am kon kay ma bañ la defal rek jigéen boo ko jàmbatee mu dolli góor soo ko jàmbalee jàmbatee mu retiré wu moo tax nee naa ci góor ñi na ngay faral di. cultiver li nga xam ne tey mooy communication bu intelligent dañ koy jàng ak sa jëkkër nan nga mën a amee ci moom dara bijou mu rafet nga am envie sa jëkkër jëndal la ko ah chéri démb fee bàgg ba ma fa romb xam naa ni moom boo ma ko jëndaloon ba ma takk ko non may doon jabo xam naa ni madame diw bi may doon naa ñëpp koy coow macha allah ndax yow góor gu nangam nga góor gu sàngam nga wax ko ay qualité gis nga góor dafay yëg boppam yëg fierté que macha allah c'est un homme que yow yaakaar ko ci yenn ba yaa koy sollicité mais su fekkente ne ah góor ñi de tey duñ taxal seen jabar or fii de góor jigéen bu tax or yaa ko jëndee sa bopp quand tu réfléchis comme ça lan ngay xaar ci sa jëkkër nañu euh, galaxandiku waat defaraat suñu gémmiñ ak suñu manière de communiquer ñun jigéen ñi góor ñi yéen tamit soyez reconnaissant ngeen fexe minimum que ce li seen jabar di def ngeen di ko ko reconnaissance al di ko wax ak aussi di ko yëkk te bàyyi di fëq jëf. ndax dañuy wax ni jamono bi ñu toll tey bu njëkk jigéen ñi lañ ko jëloon jagleel ko ne jigéen ñi mbuus bët lañu am waaye tey même góor ñi dañoo am mbuus yu bët kon mbuus bët moom jartu yor ci couple parce que du leen avancé loo li leen di avancé loo mooy ngeen cultiver gratitude di sant yàlla di santante di gërëmante di waxante ay mbaax mbaax o est trop dans le négatif xasante defante waxante lu bon culture la boo xamante ni baaxul te ko tàmmoon na nga ko baax surtout nag yéen jeune couple yi bu ngeen xoolee li leen jiitu defaraat leen seen toogaay balaa ngeen di mbëkk mbir bi comme ñi leen fi jiitu kon nag euh, bëri na ñoo xamante ni tey ñu ngi nekk ci couple tasuñu de amuñu problème yu ne fàng ne daang mais couple bi amatul appétit amatul épice neexatul amatul dara lu positif parce que lu tax mooy dañu perdre li nga xam ne mooy culture yi jox sens seen relation relation dañ koy jox sens dañ koy dund day dafa am ruux dañ koy dundal. te dundal ko bokk na ci wax yu positif wax yu neex wax yu reconnaissant loolu dafa bokk ci wax yu san flatter sans rentrer ci li nga xam ne aussi mooy wan nit kii di ko di ko flatter ci loo xam ne gëmoo ko mais li nga xam ne lu raisonnable la lu nit mën a nangu la kon lii rek lañ leen indi loon di wax salaamaaleykum salaam beneen incha allah.